bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli allahumma salli على سيدنا محمد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره شيخ تيجاني الشريف الأكبر ومقداره العظيم jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh bismillahi lwali bismillahi lwali arrahmani lwarisul haq arrahmani lwarisul haq arrahimi arrahimi xaybun nuur asalaamaaleykum asalaamaaleykum. maa ngi nuyu mbokk yi fi sang bi nee na mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. di ziyaare kilifa yi fi teew yëpp. di kilifa yi fi teew yëpp. di ndokkeel soppe yi fi teew yëpp. di ndokkeel soppe yi fi teew yëpp. di dalal ñëpp. di dalal ñépp ci béréb bi nga xam ni. ci béréb bi nga xam ni. marajal bahrayni marajal bahrayni yaltaqiyaani yaltaqiyaani baynahuma baynahuma barzakhun barzakhun la yabghiyaan di dalal ñëpp nee na muy dalal ñëpp ci leer ci leer ci xaqiqa ci xaqiqa ci yiw ak ci teranga ngir kan ngir kan kenn ki kenn ki Mawlaaya Cheikh Ahmed Ahmed Tidiane. lii lépp lii lépp. ci shahada. ci shahada. ci xayb. ci xayb. ci xaqiqa. ci xaqiqa. ca xaysiya ca xaysiya. moom la moom Cheikh Tidiane la. waaja ngay wër. waaja rek ngay wër. jàppal Mawlaaya Cheikh jàppal Mawlaaya Cheikh Ahmed lii ñu jàng lan la. lii ñu jàng léegi lan la. du faatihatul kitaab la. xanaa du faatihatul kitaab. du istixfaar la. ndax du istixfaar. salaatul faatiha la. ndax du salaatul faatiha la. du laa ilaaha illallahu la. xanaa du laa ilaaha illallahu waxuñu sax ni. waxuñu sax ni. alquran la. alquran la. dañu ni baasu. dañu ni la. ruux bu amul fatihatul kitaab. ruux bu amul fatihatul kitaab. waxul astaghfirullah. waxul astaghfirullah. julliwul ci yonent bi. julliwul ci yonent bi. xamul laa ilaha illallah. xamul laa ilaha illallah. dundul jawharatul kamaal. dundul jawharatul kamaal. yàlla du accepté ruuxu boobu. moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane. moo tax Mawlaay Cheikh fexe na ba yar fexe na ba yar taalibeem ci buum boo xam ne. buum mooy buumu waxtasimu bi hablillahi. mooy buumu waxtasimu bi bu yàlla waxul woon. waaye su yàlla waxul woon sax. wala tafarraqu wala tafarraqu. dañu naan wala tafarraqu dañu naan ko bàyyi. kenn du ko mu jëm. ku bàyyi yàlla fan nga bàyyi yonent bi fu mu jëm. ku bàyyi yonent bi fan nga jëm. mooy ku bàyyi Mawlaay Cheikh. mooy ku bàyyi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. boo ko bàyyee boo ko bàyyee. bàyyi nga yàlla bàyyi nga yàlla. bàyyi nga yonent bi bàyyi nga yonent bi bàyyi nga ñu baax ñi. soo ko jàppee soo ko jàppee jàpp nga yàlla jàpp nga yàlla jàpp nga yonent jàpp nga ñu baax lii moo des di leeral lii rek moo des di leeral àdduna tariqa tijaniya tariqa du sant du sant du aada du aada du moomeel lan la lan la géej la guy ball ca xayb géej la guy ball ca xayb fekk yi soxla leer fekk ruux yi soxla leer mu ñëw di leen renforcer mu ñëw di leen renforcer seen wàllu ngëm ci seen wàllu ngëm seen wàllu pas-pas seen wàllu wàllu détermination ba biir illi yi moo tax soo demee ci xaqiqaam moo tax soo demee ci xaqiqaam da ngay dellu si waat ci benn baat. da ngay dellu si waat ci benn baat. muy baatu laa ilaha illallah. muy baatu laa ilaha illallah. yàlla ni faxlamu annahu. yàlla ni faxlamu annahu. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. faxlamu annahu. faxlamu annahu. laa ilaha. laa ilaha. illallah. illallah. laa ilaha laa ilaha allahu allahu nuuru nuuru laahi laahi muy sooga yi mot nag li mu wax de dafa ni laa ilaha allahu nuuru laahi illallah faw nga xam yàlla. faw nga xam yàlla. xam leeram. xam leeram xam li leeram di arrosé xam li leeram di arrosé. soo koy mën a kennal soo koy mën a kennal. soo xamul yàlla soo xamul yàlla xamoo leeram xamoo leeram xamoo li leeram di arrosé doo ko mën a kennal yàlla yàlla mooy yàlla. huwal xayb huwal bas huwal bas mooy yàlla. mooy yàlla mooy ki kenn xamul mooy ki kenn xamul ki kenn mënul àgg ci moom le néant dans le néant waaye ki leeram di arrosé mooy huwal xayb fii shahada ñëw na fi muy Muhammad waaye cay xaqiqaam kay xaqiqaam mooy Ahmada ibnu Muhammad Atijaani ashariful akbar du seen morom moo tax mënoon nañ ni Cheikh Tidiane Chérif. mënoon nañ ni Cheikh Tidiane Chérif rek. ak barba lan la ak barba la. ndax bu yëkkatee loxo ndax bu yëkkatee loxo. ku doon noon yonent ku doon noon yonent bi. sëgg mu niiteel sëgg moom Cheikh Tidiane niiteel la. bu la niiteelee. bu la niiteelee. dootoo soxlooti leer. dootoo soxlooti leer. ndax loolu mu def. ndax loolu mu def. leer goo mëntoo leer goo mënti soxla. loolu dana ko desal. loolu dana ko desal ci sa ruux. pendant des milliers. pendant des milliers. des milliers. d'années d'années. te leer googu du mos a jeex leer googu du mos a jeex. mooy lim nu jox. mooy lii mu nu jox. niité bi mooy lan. niite bi mooy lan. mooy salaatul fatiha. mooy salaatul fatiha. salaatul fatiha mooy lan salaatul fatiha mooy lan. mooy xaqiqa yonent bi mooy xaqiqa yonent bi. xaqiqa yonent bi mooy lan xaqiqa yonent bi mooy lan. mooy baxru zaati mooy baxru zaati. baxru zaati mooy lan baxru zaati mooy lan. mooy baxrul uluhiyaat mooy baxrul uluhiyaat. baxrul uluhiyaat mooy lan. mooy allah kun kun fayakun. moo tax salaatul fatiha. moo tax salaatul fatiha. doy na ismullahil azam doy na ismullahil azam ci boo xamee xaqiqa ba ci boo xamee xaqiqa ba. ndax boo ko toppee. ndax boo ko toppee. ànd ak moom di dox ànd ak moom di dox. fa mu lay yóbbu di fa teere di fa teere. mooy ca Allahu mooy ca Allahu. kun fayakun. kon yaa ngi ci biir xaqiqatu ahmadiya kon yaa ngi ci biir xaqiqatu ahmadiya ndax sa sëriñ bi lay jàngal ndax sa sëriñ bi lay jàngal. du la jàngal ci téere du la jàngal ci téere. ci leeram la lay nandal ci leeram la lay nandal. masalan sëriñ boobu mooy kan. masalan sëriñ boobu mooy kan masalan sëriñ boobu moom mooy kan ndax ku amee daara la ndax ku amee daara la ndax ku doon baayam ndax ku doon baayam la ndax ku fi toog ñu rus ko la ndax ku fi toog ñu rus ko la déedéet sëriñ boobu mooy ki nga xam sëriñ boobu mooy ki nga xam bi salaatul fatiha waree wàcc bi salaatul fatiha waree wàcc ruuxu yonent yi ruuxu yonent yi di xool salaatul fatiha ku nekk bëgg ko jot ku nekk bëgg ca séddu borom bi xamal leen borom bi xamal leen ku ci attan leer ku ci attan leer gi mën nga ko yóbbul sa xeer yonent bi yonent bi di présider di présider di assister di leen seetaan di leen seetaan ak salaatul fatiha ulul azmi mina rasul yeneen yonent yi yeneen yonent yi ku ca nekk jéem na gàddu leer ga gàddu leer ga yóbbul sa xeet waaye diisaayu haqiqatu muhammad yi tax na kenn àndalu bi Cheikh Tidiane Serif ñëwee yonent bi woo ko ni kii ma représenté ca la ni nii salaatul fatih dox ak moom ñu xam ni Cheikh Tidiane waaji waaye ñu ni bu ko yóbbee waaye ñu ni bu ko yóbbee du fekk ci àdduna ku ko àttan. du fekk ci àdduna ku ko àttan. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw. Mawlaay Cheikh Tijaani ñëw. dajale ruux ya nga. dajale ruux ya nga xam ni. ñooñu la namm ci tariqa la namm ci tariqa. ku ci nekk mu garanti la ku ci nekk mu garanti la. mosal la leer ga mosal la leer ba noppi ni la sang la ba noppi ni la sang la. lal malaan lal malaan. jàng salaatul jàng salaatul faatiha te du la gaañ. su ko garanti woon. su ko garanti wul woon. mbooloom ruux bu ko jàng. bu ko jàng. ba nga ko jàngee bis ba nga ko jàngee. sala sa ruux di sofe sala sa ruux di sofe. dem ba yàgg dem ba yàgg. mu explose mu explose. ndax leeru yonent bi ndax leeru yonent bi kenn atanu ko dëgg la. kon moom Mawlaay Cheikh Ahmadou kon moom Mawlaay Cheikh Tijani. mënul yam ci. mënul yam ci. dafa mën. dafa mën. mënal gaa yi. mënal gaa yi. gaa yi. gaa yi mënal ñeneen. mënal ñeneen. ñuy mënalante ñuy mënalante. mooy wérdu Tijaniya. dafa mën dafa mën mooy moom la ko yonent bi jox mooy moom la ko yonent bi jox mënal na gaa yi mënal na gaa yi jël na jël na silsila bi silsila bi jox leen jox leen gaa yi mënal ñeneen gaa yi mënal ñeneen indi mu xaddam yi indi mu xaddam yi ñuy mënalante ñuy ñuy joxante wérd ba loolu yëpp nag loolu yëpp nag ci benn base rek mooy base nuuru mooy base nuuru ala nuur ku xam leer ku xam leer da nga nangu da nga nangu tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan ku xamul leer nag mënuloo ko nangu waaye leer waaye leer du ñëpp ko mën nangu ndax du ñëpp ko mën a xam moo tax moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan moo tax moom Mawlaay Cheikh Tijaan base fondamentale base fondamentale am base mystique am base mystique am base xaqiqa base xaqiqa am mooy malaanu wasifa mooy malaanu wasifa ku ca nekk ci ñun ku ca nekk ci ñun jox na la ca dog jox na la ca dog 30 istighfar 30 istighfar 50 salatul 50 salatul fatiha 100 la ilaha illallah 100 la ilaha illallah 12 jawharatul kamal waaye loolu pour lan la waaye loolu pour lan la pour nga jëriñ sa rox pour nga jëriñ sa rox di jëriñaate di waaye bu doon garanti waaye bu doon garanti rek ak ci barkeem moom la mu mën a wàcc ci yàlla mooy Cheikh Tijani Serif mën na garanti kuy dund mën na garanti kuy dund mën na garanti ku dee mën na garanti ku juddoo mën na garanti ku warul mën na garanti ku warul sax ci monde shahada mën na la garanti jox na ko garaat yàlla jox na ko garaat ba ñun xutbul maktuum rek la ñuy wax. nee na ñun xutbul maktuum rek la ñuy wax. ñun xatmiya rek la ñuy wax ñun xatmiya rek la ñuy ñun katmiya rek la ñuy wax ñun rek la ñuy wax. ñun barzaqul maktuum ñun barzaqul maktuum rek la ñuy wax. loolu ñuy wax yëpp. loolu ñuy wax yëpp. am na sang. am na sang sang baay ban sang baay ban. mooy xaqiqatul mooy xaqiqatul. al maktuum al maktuum. ka nga xam ni bi yonent bi ka nga xam ni bi yonent bi bëggee feeñ. ñu am tuuti lu ñu am tuuti lu ñu xàmmee ci moom. dafa jël ñaari garaat dafa jël ñaari garaat. dajale ko dajale ko. sof ko sof ko. xatmiya xatmiya. du laal du laal katmiya. ñaari prise ñaari prise la. bii di branché nit bii di branché nit ñi. ñuy doon ñuy doon ay wëli bii di dox bii di dox. ci espace intermédiaire ci espace intermédiaire bu yonent yi. bii bii di branché nit ñi di branché nit ñi di leen tabb ñuy doon wali muy xatmiya xatmiya di dox ci espace intermédiaire bu yonent bi ak yonent yi bii di xutbatul uzna bii di xutbaaniyatul kanzam ñu ni dunu laalante ndax dañu mel ni ñaari prix boo xam ne bu ci ne soo ko boole mu explose Cheikh Tijani Seri di wane pouvoir am ni dafa am bu ngeen fàtte ba ca digg ba di xaqiqa waraqatul maktum mooy su ma ko branché mu wane ma leeral ma génne samay missionnaire ba àdduna sampo ba imaamal mahdi di ñëw ci àdduna Madu Tijaan sama yow wóor na ca réew ya ca réew ya bi teg nay ndëggoom ca gooru yaat la yu kawe yaat la mu wax sangi bi ni la mu wax muy mayam ya wër na ca réew ya mayam ya wër na ca réew ya ma teg ci ni mu teg ci ni mayam wër na ca xayba mayam wër na ca xayba ca bast ca bast ca xaysiya ca xaysiya ca monde ya nga xam ne créature yëpp a ne masuñu juddu masuñu juddu ci monde sahada mayu Cheikh Tidiane wër na foofu yëpp te man maa ko laaj ku nekk barzak moom sang bi moo ko laaj ku nekk barzak man mii moom sang bi maa laaj moo ko laaj ku nekk barzax ku nekk di dund barzax ku nu denc waxoon ni wax waxoon ni kenn mënul kenn mënul wax ak moom ni leen amul moom sang bi ni amul boo nee il faatihi ndax boo nee il faatihi bàmmeel ba tijjee nga ni wal xaatimi li ma sabaxa néew ba jóg néew ba jóg ni la yow akan nga ni ko mën a diw loo tudd mun la nangam nga ni ko xam nga cheikh mu ni kuy kooku nga ni ko cheikh Tijani Serif mu ni ko am na bis na bis romb naa jardin romb naa jardin fii ci barza na nga samp xeet ya di ko garde may waaj a ñëw may waaj a ñëw malaayika yi puus ma ma ni waaw lu xew ñu ni ma mawlaaye Cheikh Ahmada Tidiane moo fi jaaroon ci fajar dëgg fi moom la ñuy garde ndax fu mu dëgg tànkam ci barza kenn doot ko dëgg sa tànk allahu akbar nitu yàlla ngoog nitu mi ngi noonu moo tax mayam ya moo tax mayam warul fii warul fii rek mayam yaa nga ca xay mayam yaa nga ca xay lépp loo xam ni lépp loo xam ni yàlla barkeel na yàlla barkeel na ko jël na secret ba jël na secret ba jox na ko Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaani yàlla tànn ko ci famille. yàlla tànn ko ci famille. tànn ko rek ci réputation. tànn ko rek ci réputation. tànn ko rek ci nañu ko ko jox. tànn ko rek ci nañu ko ko jox. daf ko tànn daf ko tànn. ndax daf ko mën. Cheikh daf ko mën. Cheikh daf ko mën. gaa yi dañu ñëw ñoom ñëpp. gaa yi ñëw ñoom ñëpp. koo ci ni ruux rek. koo ci ni ruux rek. mu ni la xuli ruuxu min amri rabbi mu ni la xuli ruuxu min amri rabbi. koo ci ni ruux rek. koo ci ni ruux rek. mu ni la ma ca xam ma xam bëriwul. leen. man Cheikh Tidiane man Cheikh Tidiane. maa xam ruux maa xam ruux. xam di leen ko tojal di leen ko tojal. di toj seen ruux di toj seen ruux. ngeen di ko dégg leer gi di dugg ba yéen seen bopp ngeen mën jël nit toj ruuxam toj ruuxam sol ci leeru waliyu nan la ñuy tojee ruux nan la ñuy tojee ruux Allah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

ilaha illallah sang bi ni ñu may ko foofu nan la ñuy couvrir nan la ñuy couvrir allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa qabl ma sabaqa nasra bil haqqi wa ala alihi asra'ika al-mustaqim wa ala أني حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقمل لما سبق النصر بالحق وعلى هذه الأسرارك المستقيم وعلى ali hamba qadrihi wa miqdarihi mu may ñu foofu sang bi ni ñu may ko foofu nan la ñuy yéegee ruux nan la ñuy yéegee ruux allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqqiqati al aydari bi markati al qawmi wal maani wa nuri al akwani al mutakammin al adimi sahibi al aqi rabbani أنزل خلاص بمدن الأدواء المالية لكل متعد من البر والأوان والنور كلام الذي ملقت به كونك نعيت بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين العقل التي ترجى الله منها عين المعارف الأقوام سرارك تام الأسقام اللهم صل وسلم على طلحة الحق بالحقيقة العظام إباد لك منك إليك عاطر النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها moom Cheikh. sang bi ni moo tax moom Cheikh. mu ni yéen miinu leen ro. mu ni yéen miinu leen ro. ko bindee yàlla secret ba xamalu leen ko. ñu ni ko waaw yow Mawlaaye Cheikh Tidiane ni ko waaw yow Mawlaaye Cheikh nga def yow naka nga def. ba xam secret ba xam secret. mu ni ni ma def. mu ni ni ma def. mooy yonent bee ma tànn mooy yonent bee ma tànn. def ma xatmiyatul maktum jox ma xaqiqatul maktum jox ma xaqiqatul maktum jox Ahmadiyya mu boole leen génne secret bo secret booboo tax mu mën a fekk ku ruuxam yàq ku defarwul mënul defare ma xëy benn bi ci ay seconde lalloo ko malaan defar ko ba moom ci boppam mu mujj di defare ku mënul lii yëkkatil sa loxo ku mën loolu rek yëkkatil sa loxo Cheikh Tijani na Cheikh nee na ku mën lii yëkkatil sa loxo nee na ku mën a fekk ku mën a fekk nit koo xam ni nit koo xam ni tekkiwul lu bare tekkiwul lu bari nga jël ko nga jël ko def ko wali def ko wali yàlla yóbbu ko xadratul ilahiya muy siège am numéro siège am di fa toog bu ñëwul kenn du fa toog nee na ku mën lii yëkkatil sa loxo cheikh nee na ku mën. cheikhu Tidiane nee na ku mën. jamono lëndëm jamono lëndëm. bakkaar bare bakkaar bari. nga fexe nga fexe. ba kii ànd ak yow ba kii ànd ak yow. bu am mukk bakkaar nee na ku ko mën nee na ku ko mën. yëkkatil sa loxo nee na mu ni ko déedéet. may ñu boobu may ñu boobu. noo koy defee noo koy defee. mu ni ni ma koy defee nee na mu ni ni ma koy defee. mooy lal malaan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah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 ilaa ilaa wal hayyul qayyum na sang bi nee na Mawlaay Cheikh wax ni mu ni setal naa mu ni setal na seen bakkaar sen bakkaar ci istighfar ci istighfar koo ca ba koo ca romb bakkaar ya mu amoon bakkaar ya mu amoon istighfar ba muy jàng istighfar ba muy jàng per bu ca nekk per bu ca nekk ruusal na bakkaar ya na bakkaar ya ba bakkaar ya set wecc jëmm jooju ba jëmm jooju amatul bakkaar te ko amatul bakkaar kooku la yàlla di wax ni ad'uuni astajib lakum moo tax lu ñaanal yàlla may ko ko laay ndeysaan. cheikh ni ku man lii cheikh ni ku mën lii yëkkatil sa loxo. mu ni ku mën a leeral mu ni ku mën a leeral réew mu lëndëm réew mu lëndëm noo koy leerale noo koy leerale mooy ñëw ak sa martaba mooy ñëw ak sa martaba rek di def karaama di ko leeral waaye ni déedéet waaye nga ni déedéet dama déglu yàlla dama déglu yàlla allahu nuuru sama mu ni allahu nuuru sama waati wal ard nga sama waati nga ni sama waati de sama gaa yaa koy leeral ardi de sama gaa yaa koy leeral fii saalihin fële saalihin fii xadratul ilaahiya fii nit ñu baax ñi ñooy dox ci kaw suufam nañ koy leerale ñu lan leen malaani malaan yi weex na leer na ba nopp boo ko lalee ñay jàng nag lanoo jàng mooy dugg ci jaww ji di dox di activer ligne ya nga xam ne mooy ligne yi nangu ñaani ñu ni allahuma yàlla ni nangu naa ñu ni salli mu ni nangu naa mu ni ala sayidina mu ni nangu naa leen mu ni ilfatihi mu ni nangu naa ñu ni wal xaatimi mu ni nangu naa mu ni ci kan ñu ni ko ci Muhammad mu ni Muhammad ma ngeen tudd nag kookoy nag sama sopp ndax kooku laa wax na wa innaka la ala xuluqin azim jikko ju màgg ju ne ji teranga moom moo ko yor moo tax bi ngeen ne sëlli mu ni ci kan ngeen ni ilfaati ngeen ni ci kan ngeen ni walxaati mu ni ci kan ngeen ni ala muhammad mu ni mot na sëkk ndeysaan ngay teewlu ana ya teewlu sayxutika hadi le salatul lu mel ni kii moom ko lu ma sëman ko caaxaan sang bi ni Cheikh Tidiane ku mën lii yëkkatil sa loxo ñu ni ko salatul fatiha nag mu ni laaj leen ma mu ni lu tax ngeen war ma laaj. mu ni lu tax ngeen war ma laaj. ndax yéen ñëpp. ndax yéen ñëpp. yéen ñi ma contre ñëpp. yéen ñi ma contre ñëpp. te man Cheikh ku ma contre. te man Cheikh ku ma contre. la tere dem jaxanam ku la tere dem dama lay boole kook yóbbu leen yéen ñaar te malaaka duma te nawaamis duma te kenn duma jàpp. Cheikh ni man Cheikhou Tidiane kenn duma contre. procès ngay xaar ëllëg yamal xiyaam du am. yawma laa tamliku yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah duñu fa àgg maa lay gàdd sànni la te benn malaaka du la dimbali su ngeen ko weddee laaj leen ko ak taabi bu ngeen ko weddee bu ngeen ko weddee fëgg leen axtaab yi laaj leen leen leen leen lu ngeen leen di laaj ngeen leen di laaj dugg si leen yéen yéen a fi toogal yàlla ñu ni la waaw ngeen ni seen pouvoir rëy ñu ni la waaw nga ni leen kuy seen sëriñ ñu gestu ko muy Cheikh Tidiane sëriñ allahu akbar mu ni ku am taalibe xutbul axtaab ku dul man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo allahu akbar mu ni ko amit mu ni ko amit taalibe xutbu zaman taalibe xutbu zaman te du man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo ku am taalibe lab daal am taalibe mafaatihul kunuz te du man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo ndeysaan mu ni tagguma sama bopp mu ni tagguma sama bopp de dama leen di wan na ma mëne ba sama baay ci leer dugg se di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dox ak tànkam yu tedd ya mu jóge fi ñu ni leeru tànkam ya mu dëggoon iblis dana ko fay mu dugg ci faas yëngal gaa yi salaatul fatiha riir iblis daw mu commencé samp gaañu may samp muy samp di samp di samp di samp ba axiru zaman ñu ni dootul samp mu ni leen tay lay samp ku ñëpp di wax Cheikh nee na dama ni leen woote leen ku leen neex wax leen moom la ci barke yonent ci barke yonent bi bu dikkee di ngeen xam dikk na lay ndeysaan te bu dikkee it man Cheikh may wane sama doole mu neex leen may doxal zaman mu naqari leen may doxal zaman nan laa koy doxalee zikru la ilaha illallah bu tar zikru salatul fatiha bu wóor haqiqatu muhammadiya bu wóor haqiqatu ahmadiya bu wóor ñu ni ko ndax ci alquran nga ko teg mu ni iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaban Cheikh nee na du ma génn mukk alquran danaa wax. danaa wax. ba nga ba nga réer waaye du ma wax mukk. waaye du ma wax mukk ba alxuraan réer. ndax lu ma wax rek ndax lu mu wax rek. dalil baa ngi ci téere bi. suwaat da ngay dégg. suwaat da ngay dégg téere bi. wala dégguloo téere bi. mu ni moo tax. mu ni moo tax réew mu ma am benn nit. réew ma yoreel nañu ñu kël. ndax na ma leen leerale. ndax na ma leen leerale. adduna bii ñu toll. adduna bii ñu toll. ci génne ñu ko leeral. ku ci génne ñi ko leeral. taalibe Cheikh Tidiane dootu ci desati de. ndax taalibe Cheikh Tidiane. ñaari lamp la. làmp la am bii suba mu taal muy wasifa suba bii ngoon mu taal muy wasifa ngoon te lu muy jeexale delluwaat ci Mawlaay Cheikh Tijaani xam nga lu leen ko may cëru seen sang boobu ñëpp bëggoon nañu yonent bi tànn leen moo tax cheikh ni ña ma doon dingat ba ma dikkee ak salaatul fatiha ñu dégg na mu dale ah. ñu ni ah lii sax moom njëkk ko indi ñu ni lii kay ni lii kay soo demee xoolal albikri muhammadul bikri laaj ko ko wax ko lan la mu joxe ci ndigal cheikh ni juum ngeen de waaye duma leen tontu léegi duma leen tontu léegi ndax du waxu léegi bu aaxiru zaman jote danaa yabal ku leen tontu te du ngeen ci mën dara e ko dana wax aliwaya na mu demee macha allah Cheikh nee na muy xayb muy sahaada muy xays muy bast salaatul fatiha sama kareem la ku ca jot maa la ci nandal macha allah amul malaaka mu am autorisation amul malaaka di la ko yóbbul. ndax malaaka mu ko doon yóbbu ndax mu ko doon yóbbu boppam la koy jox. kon malaak kon malaaka du am autorisation du am autorisation naan da nga koy joxi diw ndax nam ko soxla kon boppam la koy jox Cheikh ni kon ku ci jot man Cheikh Tidiane Serif la. malaaka yi bi ñu ñëw léegi malaaka yi ba ñu ñëw léegi dañ doon forcer porte. porte podium porte podium pour jàll nuur yaa iloo taxaw ni leen yam leen fii ñu taxaw te nuur yaa il taalibe Cheikh Tidiane Serif la. te la yéen mooy escorte yonent bi lan doon indi waaye xaal ba ñu ñëwee ak na seen forme dragon ak ni seen bég yi toll ñuy forcé ba ñoo forcé bëgg jàll même nuur yaa il moo génn ni leen yam leen fii ñoom ñëpp taxaw te nuur yaa il taalibe Cheikh Tidiane Serigne la allahu akbar macha allah jërëjëf tamit ku gisul xayb gisoo sahaada mën nga jaaxal waaye loolu ñoom ñi loolu jaaxalu leen lay ndeysaan ci ñooñu ngay xool ci ñooñu ngay xool xam Cheikh Tidiane mooy kan la mu lay jàngal mooy la mu représenté dooleem leeram te nawaamis ci xeetu a la bokk waaye brigade spéciale la bu mënee arrêté malaaka kaka defara tax muy Cheikh Tidiane Serif moo leen tarbiya moo leen dugal ci néeg moo leen làq ci roq xay bi moo leen jox salaatul fatih ñuy dóor di dóor ba seen dënn fees ak leer mu génn ni leen ku yore mission universelle bu leen ci associé bokk leen bu leen ci associé bokk leen laa ilaha illallah kon bu mu yàggee organisé boobu du léegi moo tax moom moo tax moom du xëccoo jamono jamonooy dem di xëccoo ay xalifaam xalifaam bu ñëw rek ñu ni mooy borom jamono na muy nekkee borom jamono mooy lu jamono di dox di tàggu ko ñu bare ngi wax ñu bare ngi wax waxu borom jamono. xamuñu sax luy borom jamono. borom jamono mooy koo xam ne. bu xëyee suba. balaa génn univers bi jàngal ka fatiha. mu dox tuuti univers bi jàngal ka salaatul fatiha. mu dox tuuti suuf si ni ko marhaban marhaban marhaban yaa seydi. ku mënul dégg lool mënoo jamono. يا إمام المهدي يا ابن جبتي يا سيد محمد الجلال سنبي لما ربا

li tax mu ni may ñu. li tax mu wax may ñu. Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaani. Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaani. bi mu ganee àdduna. bi mu ganee àdduna. ba ba mu fiy jógee. ba ba fiy jógee. ba léegi. ba léegi ay preuve rek ay preuve bu njëkk. preuve am bu njëkk. mooy bi mu ñëwee. mooy bi mu ñëwee. am na ñu fi fekkoon. am na ñu ko fi jiitu woon am na ñu ko fi jiitu woon ci shahada. waaye kenn jiituwu ko nag ci xaqiqa. kenn jiituwu ko ci xaqiqa. kenn mas ko jiitu nag ci xaqiqa. yonent bi la àndal yonent bee ko jiitu. ku ne ci ndeyjoor yonent bi. Cheikh Tidiane Serif. fan la nu wàcc fii la nu toog. lal seen malaan wax seeni i baat dellu. boobu rabbi wa aadamu baynal maa i wa tiini. la ilaha illallah nee nañu aadama moo njëkk dëkk ci suuf bi loolu di xew cheikh di ànd ak yonent bi yonent bi branché wilaaya ga boobu rabbi wa aadam baynal maa wa tiini lay ndeysaan te la Cheikh doxal lépp te la Cheikh doxal yëpp digganteem la ak yonent bi waaye mu judd ci saxaar waaye mu ñu ni am na ñu fi jot a jaar ñu ni dem na sax seeti leen ñu ni dem na sax seeti leen ñu ni jaar na fi ñu ni jaar na fële mu ni jaar jaar dox di dem dox di dem kiy dox ndax mooy dox kiy wax ndax mooy wax kiy jëf ndax mooy jëf daf la koy laaj ndax xaqiqa la ki sol yére ndax moo sol yére kiy wax ndax mooy wax kiy gis ndax mooy mooy gis kiy dégg ndax mooy dégg xaqiqa la. xaqiqa bu mag xaqiqa bu mag. ñëpp dañ ni woon kiy solay sol ñëpp dañ ni woon kiy solay sol kiy waxay wax kiy gisay gis kiy laqay laqe yàlla ni du ya yaa naaru kuuni bardan safara ni teg nekk glace nekk glace mu ni wa mu changé wàññi dose ni mu ne woon ala Ibrahim ni mu ne woon ala Ibrahim bu ni woon ala ca keneen noonu la koy jéggale yàlla ni leen laqewul man yàlla maay laqe macha allah ñu ni jaar na fi yonent bi seex ni yonent bi dana leen wax dana leen wax ni jaaruma fenn jaaruma fenn ñu ni nam koy waxee ñu ni nam koy waxee mu ni déglu leen ma rek ci désertu Samxon léegi da ngeen xam la yonent bi di wax ba yonent bi ñëwee la mu ko njëkk a wax anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan mooy ñett yow incha allah nee na moom ñett yéen na mu koy misaale waxul sax waxu nuuraani waxu ruuxaani wala jëmmi shahada waaye dafa ne na mu koy jàppe mooy allah huwal haqu wal haqu huwal laah macha allah loolu boo ko dajale mot ka toj ka moo lay jox allah nuur laahi laahi laaha illal laah macha allah mooy xaqiqa Cheikh Tidiane yonent bi ni ko yonent bi ni ko sa taalibe yëpp nga nangul leen nga nangul leen ñooy samay saxaaba moo tax mu ni bàyyi leen moo tax mu ni bàyyi leen di sosal di sosal cheikh noo leen koy sosal noo leen koy sosal mooy ngeen nekk fii mooy ngeen nekk fii naan saxaaba diw ko ëpp dama ni ci barke dafa ni ci barke cheikh la wax su gisoon moom mi ko ëpp cheikh mu dem topp ko gisu ko moo tax mu topp cheikh su gisoon ku ko ëpp xam-xam mu topp ko gisu ko moo tax mu topp Cheikh waxul xam-xamu téere de xayb la wax xaysa la wax bas la wax xadratul ilahiya la wax leer yi ci juróom-ñaari suuf ci juróom-ñaari asamaan ca jabal ya ca montagne ya ca arafat toj leer wax lan la woj leer génne la ca biir wax ni lii la Cheikh Tidiane kese moo ci mën ku dul da ngay jàng rek jàngul kii jàngul kii jàngul kii day jàngale kii sedduñu kii sedduñu kii day balleer kii joxuñu ko kii joxuñu ko kii day joxe kii tarbiyewuñ ko kii day tarbiyewaate kenn la benn maître la benn sauveur la Mawlaaya Cheikh Ahmada Tidiane secret buñ tudd ak ci turu yàlla bu mu ak ci turu yàlla bu mu jóge ak ci xaqiqatu muhammadiya ba mu jóge Cheikh Tidiane Chérif moo détenir secret boobu moo koy branché waat moo koy séddale waat moo koy joxe waate moo koy branché waate moo koy branché waate moo koy séddale waate moo koy joxe waate moo tax mënoo nekk moo tax mënoo nekk wali te xamoo Cheikh Tidiane suwaat da nga koy suwaat da nga koy xam ci leeru cofeel bëgg ko bëgg ko sopp wala mu branché la koo ni branché wu ko boo demee ca moom dana ni branché na ma boo weddee branchement boo weddee branchement ba dugal xalwa laaj ko boo ko gisee lan lay jàng salaatul fatiha jawharatul kamal laa ilaha illallah istighfar bu ci nekk tampon bu Cheikh Tidiane moo ci nekk moo tax mu ni ku mën leeral noonu zaman moo tax mu ni ku mën leerale noonu zaman yàlla yu ni toll formé nit yàlla formé nit yàlla yu ñu toll. defar leen wax loo leen leer jàngal leen ko yëkkatil sa loxo benn loxo du jóg. ba ñu ko waxee. ba ñu ko waxee ca xayb benn loxo rek moo jóg. ndax dañu lal malaan ba ca xayb man yëguma ni am na nitu yàlla moom sang bi yëgul ni am na nitu yàlla bu ci nekkul woon ndax ka ca teewul woon ci saxaar sa ruux teew na ca ñu ni ku mën ni seex di def ni ko yonent bi defaree na sa loxo jóg toog nañu 30 minutes loxo jógul ñu toog ba yàgg benn loxo arab bu weex tàll di melax mel na jant loxo ba daal di jóg ànd ak kurus ba ñu xool ndeke loxo ba loxo manto Cheikh Tidiane la ndax kenn mënul mel ni moom bi ñuy wëri fa sànq tisbaar nee na mi ngi yëngal boppam ndax na mu yëkkatee woon loxoom foofu noonu la koy yëkkatee waat fii macha allah. loolu lañ cay dégg mooy day wax ni xayb shahada la ca seen diggante moo ca nekk moom moo tax boo bëggee jàng ñëwal Cheikh Tidiane jàngal bu la jàngalee nga jommal képp koo xam ni jàngal nañ ku la jàngalu loo jàng-jàng téere booy wax benn a faatih di gàtt gàtt nag tekkiwul wax ko nii jum ci arab déedéet gàtt mooy la mooy wax a faatih leer ga a sa ruux loolooy gàkk loolu mooy gàkk. mais mais du wax salaatul waaye du wax salaatul faatih ñu ni mënoo ko mooy wax ko leer gi rejeté sa rox bu ko rejeté dootoo nekk wali dootoo am njabootu wali dootoo am famille wali. incha allah Cheikh nee na ku ma compte Cheikh nee na ko compte garanti na la leen na la leen doo nekk wali doo am doomu wali doo am famille wali doo am sëtu wali doo xaritoo ak wali yi. Cheikh nee na ku ma compte. Cheikh nee na ku ko compte. doo nekk waliyu doo nekk waliyu doo am njabootu waliyu sa waa kër du nekk waliyu doo xaritoog waliyu doo jege waliyu waliyu du la bëgg moo tax ku koy compte moytul kooku ak képp ku kooku di àndal ndax bokk na ci. waaye ku ko sopp waaye ku ko sopp mu ni da nga nekk waliyu sa waa kër nekk waliyu sa njaboot nekk waliyu ngay xaritoog ay waliyu cofeel boobu dikkee yàlla moo ci intervenir Mawlaay Cheikh Tijaan Mawlaay Cheikh Tijaan du moom dafa bëgg yàlla rek bëgg na yàlla de waaye yàlla moo ko gën a bëgg du moom dafa bëgg yonent bi rek bëgg na yonent bi de waaye yonent bi moo ko gën a bëgg bëgg yonent bi bëgg yonent bi moo tax Mawlaay Cheikh jël lépp luy dundam lépp luy awraadam boox ko yonent bi yonent bi jëlaat lépp luy xaqiqam lépp luy fuyidaadam boox ko Cheikh Tidiane ni ko nag boox ko gaañ Cheikh jël loolu boox Mouhamad Damrawi Cheikh jël loolu boox Aliou Arasi Cheikh jël loolu boox Mouhamadul Ghali Cheikh jël loolu boox Cheikh Alhaji Omar Cheikh jël loolu boox Seydil Haji Malick Cheikh jël loolu bokk Serigne Babacar Cheikh jël lool bokk Baye Niass Cheikh jël lool bokk Cheikh Abba Sall Cheikh jël lool bokk Thierno Seydou ko moom Seydi Mouhamed El Cheikh jërëjëf ku barelewul du def noonu ku néew boo bokkee kenn rek jeex cheikh nag cheikh nag barelee tax ku ne mu jox la ku ne mu jox la nga ni si man la nga ni si man la mu ni joxaaleel ña nga àndal nga joxe ba sonn ni dax leer ga jeex mu ni damay joxewaat kenn mu joxaat ña mu àndal damay jox ñi ñu jox waa Sénégal ma jox ñi ñu jox waa Chine ma jox ñi ñu jox waa Mali ma jox ñi ñu jox waa Amérique ma jox ñi ñu jox waa France ma jox ñi ñu jox waa adduna ma jox imaaman ma mu jox leen jox malaayka yi jox waa xëy jox saxaar boole ko na mu jël suuf lal ko lépp boole ko mu doon leer. doon leer boo xam ni. muy doon ju leer boo xam ni. mel na na baloo tóob. na na baloo tóob. leer rek ca ne bu mission jotee. dana ci digg àdduna. dana ko génne ci digg àdduna. teg banoo lumière ba doo ca. ku bëgg dinga leer ku du sàng bee. ku bëgg dinga leer ku du sàng sang be Seydi Muhammad el Cheikh mooy sirru Taha mooy sirru Yaasin Seydi Muhammad el Cheikh mooy sirru Taha mooy sirru Yaasin kon nag ku bëgg dinga leen bañ di lu tax jamono jooy ku bëgg leer leer naññi ku bañ leer gën a ti leer leer gi moo intense intense sophistiqué efficace rapide baax ci rox nag baax ci xol baax ci yaram baax ci bët baax ci bakkan baax ci loxo baax ci kurus efficace am rapidité ba noppi crédible chef rek ko ko am doo juum doo jànn foo dóoree rek gaa ñi génn doo juum boo àndeek seex doo jànn soo dóoree gaa ñi mu ni salaatul fatiha sama moomeel la man Cheikh Tidiane muy séddale nam ko neex mu ni jawharatul kamal sama moomeel la ndax man Cheikh maa ko dosé seexa dose jawharatul kamal wàññi dose bi ba dox yi mën ko wax ñu dégg leen waaye bu ko bàyyi woon ak dose originalam ku tudd jawharatul kamal boo demee ba ci ha itati bi markadil fuhum wal maani wa nuuril akwanil mutakawinati adamiha saahibil haq rab haqi haqi haqi fa la sa ruux di yam moo wàññi dose bi moom cheikh dose bi la wàññi. dose bi la wàññi. bu bàyyi woon dose ba noonu bu bàyyi woon dose ba noonu ku àgg ca xaq bi dootoo ko waxati ndax allah huwal xaq wal xaq huwallah te nuuru zaati bu intervenir sëru daf koy seeyal. moo tax ba ñuy wasifa tisbaar léegi cheikh ni ko xool ka nuuru zaati loolu la doon yëngal boppam place la boo xam ne ku fa jaar leer gi làq la ndax leeru uluhiyaat ba fa ne ko dosé ci voltage bu min def attanul cheikh ni ma xool ak laser ya ànd ak laser ya naan ko nii ak mantoor mantoor kuy xuus géej kuy di dox comme kuy xuus géej naan nii laser ak manto di dox ci baxru nuuru zaati mu xam ni ku ci dugg ku dul moom ca buntu la la leer gi di seeyal nee na mu ni ko yaa ma doy sëriñ yaa ma doy wasiila yaa ma doy lépp yaa ma doy adduna yaa ma doy àllaaxira yaa ma doy ci xayb yaa ma doy ci bés yaa ma doy sama kur yaa ma doy sama ru yaa ma doy sama xol yaa ma la amul mu ni ka ko bëgguma dara su ma la amee soxlootuma dara naa la am rek yow Cheikh ndax ku la am am na yàlla am na yonent bi am na leen ku la ñàkk ñàkk na yàlla ñàkk na yonent bi ñàkk na leen tawféex mooy la ànd ak Cheikh Tidiane Serigne loolu mooy tawféex li lay féexloo mooy leer yi leeral sa xol di leeral sa ruux di la tabb ba nga mën a tabbaate ruux bu génn ci yow nag yàlla def mu doon wëli nga wasifa ba nopp foo dëgg sa tànk leer ga des fa abadan nga ànd ak moom continue cheikh moo mën loolu moo tax mu wóolu ko moom sang bi dafa ni ko Seydi Mouhamed al Cheikh mu ni ko la bay mu ni ko jël naa sama loxo nday jor teg sa mbagg ndax am nga sécurité wala amoo sécurité nee na mu ni ko waxuma sécurité bu saxaat bu xay bi sax bu bast sax bu xay siye sax am naa ko ngir yow ku mu ni nii jeex na nañu fexe Cheikh nañu fexe Cheikh jàpp ñu ndax lépp lu yëngu ndax lépp luy yëngu alamul mulki alamul mulki alamul malakot jabaroot basaatul jalal leer yey bal géeju allah nurullahi ba bu ca nekk Cheikh Tidiane Seri am na ca accès mën na ca intervenir mooy joxe ordre ya mooy doxal ku ko ca lu ko ca neex mooy am lenn la nit dese nag ci axiru zaman mooy ñaan mu nangul la sa taalibe amin ndax boo nekkee taalibe ndax boo nekkee taalibe yow yaa am confiance yow yaa am confiance ci barsax boo gisee nit ñi di wax waxi safara xamuñu safara salaatul fatiha daf koy fay safara safara salaatul fatiha daf koy salaatul fatiha daf koy fay bu sa ruux jaxasoowee ak leeru salaatul fatiha jahannama du la lakk xam nga lu tax lakk nañ la ba nopp lan moo la lakk leeru salaatul fatiha lakk na sa ruux transformé ko daf ko leeru yonent bi nga ànd ak nuuraani yu bu muhammad bu jubile di jubile ba biir basaatul jalaal te yàlla xaaba xaw say ni la ko waxoon aw àddina ba mu ñëwee waaye taxawaay boobu yonente bi lépp lu nekkoon ci yaram changé na doon lumière ndeysaan lumière boobu lumière boobu booy zikr salaatul fatih moom lañ lay piqûre ba mu seeyal sa ruux yóbbu ko ci maqaamaat boobu moo indi bu étincelle ya dee daal sa dënn jóge ca baxarul xay ngay jaayu ndax sa dënn moo tàng dëgg la ku gëm cheikh rëcc nga ku ko wóolu ku ko wóolu rëcc nga ku ko am dem nga te kenn mënatu la baare lépp rek moom la te li mu wax yépp nag xaal amu ci de preuve la ñuy wax à l'appui ku mën kay tegal preuve yi waxuma preuve saxaada waxul preuve saxaada dafa ni preuve xayb ak bu saxaada wali yu xam nañ xam nañu xadratul ilaahiya wali yu gis way na Cheikh Tidiane xanaa mu way ka ñu dégg wala mu way ka ñu waaye way na Cheikh way ba mooy lan mooy nangul nag ndax ku ko nangul ku ko nangulul mënuloo dem xadara ba ñëpp ka nangul mu ni nag nangute boobu mu nag nangute boobu kenn koy prouvé mooy samay taalibe mu ni samay taalibe mu ni samay taalibe ñooy prouver sama grandeur man Cheikh Tidiane mu ni moo tax bu leen ñàkk fayda bu leen ku bu leen fontu wane leen leer wane leen xaqiqa dëggu leen ci doxal leen ca bu leen laajee preuve exploser leen preuve ba ñëpp teg ci seen bët ñu xam Tidiane mooy lan ndax Tidiane dëgg mooy leer mooy xaqiqa mooy wël mooy xut mooy afkar mooy xaqiqatul muhammadiya ku nekk na ko xam noonu la àdduna di doxe nag di gën a leer ci barke Cheikh Tidiane barkeem ba mu ñëwee ba léegi moom ngay dégg bu àdduna dee tukk moom ngay dégg bëgg barkeem bañit barkeem bu jant bi génnee barkeem bu weer bi génnee barkeem bu ndox mi neexee barkeem bu ñu tegee ñam barkeem boo doxee barkeem boo waxee barkeem boo toogee barkeem ndax lay dundal lool mooy salaatul fatiha te bu riirul woon fii àdduna tukki bu yàgg kon nañu xam cheikh kon nañu xam ay kan bu ñu yam rek ci bu ñu yam rek ci toog nii commandant wax na ko léegi nanu jaxasoo nanu seej ci moom nanu jeex ci moom ba dootuñu gisati leneen lu dul jëmmu Cheikh Tidiane loolu nag moo ñu yóbbu aljana mu ni la leneen la wax ci tappale wala di wax la neex ci tariqa bi du la yóbbu aljana safara la la jëmee direct la ñuy yóbbu aljana mooy gëm cheikh fonk ko topp ko lu muy sant ñu def def lu mu ñu tere ñu bàyyi suñu jullee mu nangu suñu wooree mu nangu suñu génnee asaka mu nangu suñu demee Arafat mu tawa a tawa taw ba taa lay ndeysaan dëgg lépp boo ko gëmul wala wóolu woo ko boo fa demee mu bekkoore bekkoor ba tàngaay bi la boo ko nag boo demee mu sedd boo demee mu sedd guy ndax Cheikh ci boppam mooy climatiseur ba moo tax bu tàngee moom la ñuy wax mu indi gaayam mu seeral mbir yi macha allah preuve à l'appui la ñuy wax. te loolu mooy xaqiqatu te loolu mooy xaqiqatu ahmadiya ku ko miin ku ko miin salaatul fatiha bee tax la ilaha illallah istighfar lépp dellu ci ci moom kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ci barke yonente bi barke Cheikh Tidiane lépp luy zaahir di baatin di xaqiqa di xaybu mu jël ko tuur ko suñu rox barkeel ko sàmmuñu taxawuñu jox ñu dénkuñu sopp ñu may ñu ñu doon ay taalibeem kese nag ndax taalibeem mooy taxe fi mooy taxe fale xaqiqa fi mooy xaqiqa fële ñu jàng ñun ñëpp fatiha tënk ci xaajo yëpp tëje ko salaatul fatiha ndax bu dee gàmm indi woon gàmm na ñun nan la ñu gàmmoo yonent bi Cheikh Tidiane sunu ndeyjoor sunu càmmoñ wasifa tisba Cheikh Tidiane yonent bi ak seen escorte bu guddi àjjuma yonent bi Cheikh Tidiane ba ñu fi ñëwee ba léegi yonent bi Cheikh Tidiane ñun ñii toog ak ñoom benn jotaay benn place benn toogaay ku loolu naqari fexeel noo gisee ak ñoom ñun ñii de waxuñu dañ leen bëgg rek waaye ñoom ñoonu bëgg loolu la ñuy sante yàlla ñu jàng fatiha ñu def ci haajo yëpp tëjee kook salaatul fatiha ci barkeem mu may ñu ba déwén ñu toogaat fii tuddaat ko waxaat ko di ànd ak moom ba l'an deux mille soixante quinze ñu dem ànd ak moom biir illiyin ndax rëddëm la te rëddu cheikh nii lay def ba biir illiyin kenn mënu ci dara kon nan jàng fatiha tëjee kook salaatul fatiha billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddiini iyaka nahbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata allazina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala dalin amin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 waaw tabarakallahu mboolem yi ñu ngi leen di ñaan ñëpp toog sangu bu tedd bi génn tabarakallahu di leen ko ñaan waaye kon daal bu yàlla taxaw Souleymane micro wala ah, jëm ah, par ak pare ak audio